station euh, de Badjahate, euh, nous lu lire comme information mooy euh, la DIC nyom ñoo Joton Demjeli, dem jëli kàddu yi nga xamante ñu mais l'un leen l'activiste vient d'être arrêté par la division des investigations criminelles pour offense au premier ministre Ousmane Sonko il a été interpellé cet après-midi à Pikine Technopole puis conduit dans les locaux de la division des investigations criminelles. Badiakhate, membre de Benno Bok Yakar, est connu pour ses sorties médiatiques contre Ousmane Sonko et le PASTEF. Récemment, il a fait une sortie euh, sur la récente polémique sur les LGBT avec Jean-Luc Mélenchon à Dakar. foofu la ni am li nga xamante euh, la réaction daaw de jigal Mamour. Mhm. bon euh, ginnaaw gi ñuy té internet Euh, ji bu ñu nekkee ci réew. Mhm. ñu ne ñu dafa am réew moo xam ne fu ñu toll. kan mooy Bah mhm. ñu ne la baatu Bah mooy administrateuru baatu dëgg baatu dëgg benn seen la boo xam ne moo fi ne. ñu ne la kan mooy Bah Diakhaté mooy quelqu'un koo xam ne mën nañ ko woowee comme activist wala kenn koo xam ne tey Tange Tandian liggéey bu ñaaw bi nga xam ne moom la doon def leeral ba mu fa jógee. Bah mhm. moo ko doon yeggale. ñu ne la kan mooy Bah Diakhaté mooy ki nga xam ne jege woon na nguuru Macky Sall waaye nag doon na koo xam ne saa su ne daana yëkkati ay kàddu yu ñaaw di ko teg ci ñi nga xam ne ñoo fare woon ci ku jege balaa may dugg am naa kàddu yoo xam ne moom laa dégg mu jëmale ko ca euh, le premier ministre di Ousmane Sonko rafetul ma ci jaar mm-hmm. ba seen wi di ko dégg mm-hmm. xam nga tey lu waral cooli dëgg ji nga tey dafa am fu ñu toll Mamour. Mhm. et que du Sénégal rawatina ñi nga xam ne euh, ñoom ñuy suivre xam naa ne dinañ si ñëw cooli cooli yëpp mooy Bah dafa yëkkati ay kàddu euh, jëmale ko si ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko. Mhm. Euh, Ousmane Sonko la ko jëmale ginnaaw gi nga xam ne visitu Mélenchon fi amoon na fi. ci kàddu yi muy wax da ngay dégg ne Bah Diakhaté dafay joxañ baaraamu tuuma di jégalu lu baax a baax si kàddu yi mais day joxañ baaraamu tuuma ne premier ministre bi moom dafa am link ak ñi nga xam ne ñoo faree borom ñaari tur yi rawatina kuréel bi ñaan Oxfam benen bi mooy am ca keneen koo xam la dafa j'ai reçu la visite euh, euh, de la DIC dirigée par Adra Messar mhm. je tiens informé l'opinion nationale comme internationale que je suis entre les mains de la police je ne suis ni malade ni souffrant je retire mes propos tenus à l'encontre de Abdurrahman Kebe et sa proximité avec Ousmane Sonko. Je retire mes propos concernant Ousmane Sonko et les pro-LGBT je reviendrai bientôt beneen message bi nga xamné ne teg na ko mooy du tontu ben réponse Abdourahmane Kébé boko xolé tay mën nañ wax ne si bok ci walum wàllum Pastef la Amna mhm. dossier bo xamné tambali nañ ko guéné. Mhm. Benen bi le premier ministre Ousmane Sonko bi nga xamné mom la yëkëti ay kàddu ne dafa am relation ak li nga xamné ne ñi faré manam LGBT yi mhm. lu tax kàddu yooyu am moy visite bi nga xamné ne Mélenchon dafa ñëw am Légui nak il est temps ndax nguur la ñu am wala caaxaan la ñu am wala la am ji nga si jamono Macky Sall. Mhm. dañ doon wax ne force res à la loi. ñu ne la état du caaxaan ñu ne la état bi ñu am dañu sérieux te dañoo professionnel bu loolu la ñu doon wax. Mhm. Euh, tey ne euh, ñoo ngi door a nag am état bu sérieux tey lañu war a xam ndax état au nom de quoi. ci yan euh, xam nga fan nga tey mhm. tëj nañ fi ñu bëri. waaw si caaxaan si réew mi di Sénégal. nit toog na benn mati Sarr Niang di jàllale information ju joxe ñu fekk ko këram tëj ko loolu teguñu ko woon ci état dëgg-dëgg waaye yëfi caaxaan la ci réew mi di Sénégal ñu ne la benn Anita jàpp nañu Ousmane Sonko kenn amul image yooyu moom mu am fitum génnee ko ci même réew nga dégg tey benn mati Trois Pommes benn baajaxte defoon seen soi-disant link yëkkati ay kàddu yu ñaaw di ko jëmale ci ñi nga xam ne ñoo fi nekk bi ñu nekkee kuje ji nga bu ñu nekkee ci réew ñii. dañoo toll si réew moo xam ne fulla dafee war a am dañoo toll si réew moo xam ne ñu xam ne état du caaxaan état état du caaxaan boobu nga xam ne ñoom Bah Diakhaté dañu ko doon wax ñoom Soya Diagne dañu ko doon wax état bi nga xam ne moo ñu doon wax ne force day rester si wàllum loi. Mm-hmm. état boobu nag tey lay door a xew xam nga tey mooy lan. Mm-hmm. yàgg nañ jël nit. dénigré ko yàgg nañ jël nit def si moom diffamation yàgg nañ jël nit def wax ko ci moom kàddu yu ñaaw yoo xam ne du mujj fen ji bu nekkee ne ñoom Ousmane Sonko dañoo bëgg jiite réew mi. daldi loo xam ne kat maslaa bi ak bay bayal bi dafa war a teel a jeex mooy au nom de quoi benn ba xool premier ministre Sénégal ne ko dafa am relation ak li nga xam ne moo di wàllum LGBT. am na yeneen kàddu yoo xam ne sax moom la ci wax ndaxte bëgguma cee ñëw ndaxte sànq am na kàddu yoo xam ne et le même ba jaxate mooy wax moo di Ousmane maa ngi jégalu. dinañ si euh, dinañ si wax moom mënu ma ko wax mooy. Mhm. day def ne comme que euh, ki nga xam ne moo fi jiite woon Pastef am na yu mu seqoon nag ay borom ñaari tur lu bëri. Mhm. tey ji bu ñu tolloo nag si réew mi ji nga bu ñu tolloo si réew ñu ne ñu. réewum fulla la ñu ne ñu ne ñu état de droit la ñu ne ñu ne ñu état boo xam ne ji nga baa jaxate mhm. au delà si baa jaxate bi nga xam ne moom la yor ne baatu dëgg nga xam ne saa su ne ñun xam nañ ne propagande fay am ak kàddu yoo xam ne da ko doon jëmmali si ku jéggi mu doon kàddu yu ñaaw jënga ñooñu mhm. il est temps yoon def seen liggéeyam xam lan mooy yoon tey nag tey ñu tey la ñuy door am tey doo dégg ne benn Anita Diop moo wane photo Mamour ñu dem jàpp ji ko tey doo dégg ne benn Mati Trois moo xaju xalaatam si kenn ñu jàpp xam mooy lan mhm. bi nga xam ne toog nañ dégg ab nit mu yëkkati ay kaddu yoo xam ne kat la mu wax méngoowul ak dëgg wala fekk ñoo xam ne tey ñoo faree ci état mu yëkkati ay kàddu yu ñaaw jëmale ko ci ñoom tey état de droit boobu nga xam ne ñoom ñoo ñu ko doon jaay au moment bi ñu teewee mille personnes yi état bi nga xam ne moom ñu doon wax ne dafa dafa dafa fort wala état bi nga xam ne moom la ñu doon maanaam amul caaxaan. Mhm. état bi nga xam ne moom la ñu doon jaay ne suñu eh, maanaam suñu FDS dañoo maanaam dañoo dañoo am xam-xam ji nga looy leb de na doon lu baax. bal bi dafa këpp seen kaw loolu. bal bi dafa këpp seen kaw au delà bal bu këpp seen kaw. mais nit boo koy waxal da nga koy wax loo xam ne moo di dëgg nañu am matu goo xam ne kat ne nee na du wax mais na génne des informations yuy wane ne nit ki kat kii nii lim ko waxal am na wala amul xam nga lu tax wax loolu. waaw daaw da ji nga il est temps. Mhm. si réew mi ñu lijjanti ko dafa bëri xam nga ñoom Ousmane Sonko malheureusement amul kujje bu fi nekk bu jàkkaarloog ñoom xam nga lool. opposition amu fi. lan moo tax nga ne opposition amu fi opposition amu fi. Mhm. waaye am nañ ñoo xam ne bëgg nañu opposé waaye am nañu koppar. koppar googee nag ñu yor. kon yow da ngay rejoindre ñuy wax ne dinañ toll ci jamono joo xamante ne opposition bi ñu bëri ay milliardaire lañu. Euh, euh, ñoo jox ba jaxate xaalis ñoo nekk ci yenn organe presse yu bëri ñan nga gis jamono gi ñuy opposé wu benn Soya Diagne nga doon gis mo opposé wu mom mom la Dakar wa 221 day gagné convention partenariat ci état bi ñan nga doon gis ñuy opposé wala ñan nga gis ñuy opposé ben ba Bah Diakhaté la baatu dëgg da doon gagné des conventions ñan nga gis ñuy opposé wu benn Kaliphone ngay dégg benn Awouskity xam nga moy ji nga bu ñu ci réew. Hmm. ñi fi né mom waru ñoo opposé wu mais dadi il faut ñu fort foog ñu am doole imagine la fois passée. nga dégg Adus Adama Fall yëkkati ay kàddu toog ak euh, waa waaju Sorbonne Walf bi ak Aïssatou Diop Fall ñu toog ne Waly Bodian jour bi ñu koy teg loxo maa ngi jéggalu ci kàddu yi ñu ne boobu da doon tuur ndox nee na maa ngi jéggalu Adama Fall nee na Waly Bodian jour bi ñu koy jàpp xam nga jàppoon nañ ko. ñëwaat ci arrestation. ñëw ci arrestation. Mm-hmm. nee na boobu moom da doon maanaam. da doon pipi noonu la ko waxee maa ngi tub bu baax a baax si kàddu yi léegi tey loolu au nom de quoi benn Adama Fall mën a yëkkati kàddu yooyu di ko wax yéen firnde la si am et le même Adama Fall moo yëkkati woon ay kàddu jëmale ko ca aad ah, ah, maanaam animal jim animal ji ah, maanaam animal jim porté ko yoon da ko waroon lijjanti ay mbiram mortala taala euh, chroniqueur dox si ay jéego ba loolu yem xam nga lu tax ma lay wax nii. Mm-hmm. nguur gi ñu ne dañoo yor koppar. maanaam pour ñii pour ñii pour ñoom Ousmane Sonko pour ñu mën a doxal. waaw pour ñu mën a doxal waruñoo nekk si réew moo xam ne dañuy def tolérance maanaam di baale dañoo am nguur goo xam ne dañoo jël benn aadama Fall dañuy jël benn Bah jël keneen a keneen ak keneen ñooñu ñoo nar a doon kujje bi ñooñu tey ñooy wax information yi nga xam ne ñoom ñooy opposé wu. Daouda nag da ngay rejoindre ñi nga xamantene bobu tay ñi ngi wax ci mbirum tolérance bi et que euh, arrestation bi nekkul ben exemple pour peut-être ñeneen ñi nga xamantene ne naam ñi ngi yëkëti ay kàddu diko ko sànni suñu autorité. xam nga euh, bu ñu nekkee ci réew. ñu ne mhm. dañoo fal nguur gu bees. waaw may revenir jërëjëf et le même Moustapha Diakhaté créé Sénégal 24 am toog fa di fa wax lu ko neex te dara du leen ci fekk Mamour réew mi nguur gi ñu nekk nii il est temps. ñu régulariser il est temps ñu xam kan mooy journaliste kan mooy chroniqueur kan moo yor média il est temps ñu xam kan moo jóg ngir yëkkati ay kàddu ñaaw jëmale ko si ñeen ñi xam nga nag dañ doon wax lu ne déggoon nga fi ñu ne la Ousmane Sonko wa dañ ko waroon rey waroon nga fi dégg ne diw dañ ko waroon xarafal waroon ngaa dégg ne si jamono giñ jëm jigéen waratu fi woon jër jur ku mel ni Ousmane Sonko xam nga lu ñu fàtte la woon dafa woon ni dañoo nekkatul ci nguur goo xam ne tappale lañ koy teg ak caaxaan dañoo nekkatul ci réew moo xam ne benn Suzanne Camara moo naan ausman Sonko mii dañ ko war a rey du mujj fen ci même moment benn patriote wax xalaatam ci réew mi ñu jël ko def ci moom assarnement tey opposition amu fi mm-hmm. mais xam lu fi am ñoo xam ne dañuy woowee seen bopp opposant te jugal seen koppar si yenn médias yi ji nga il temps ay Waly Bodian damay ànd ak moom si wax jooju réew mi pour ñu gouverner ko sa ñii foog ñu demantele leen xam nga demantele bi mooy lan. mooy mooy ñoom ak seeni organe ñoom ak ñi leen di waxal lu bon. Mhm. képp koo xam ne danga see jaar naka su dul doon yoon teguwaat la ci kaw ba mu leer nañ. mënuñoo yor réew Mamour di ko yoree ci tàppale yow nguuru Macky Sall bu ñu leen wax leen lu ñuy wax est-ce que nit mën na ma wax ne lan lañu war a wax ci réew mii amul yéen ñu jox leen suñu xaalisu Covid ngeen sàcc ko lekk ko yéen ñu ne leen fee ci Thiès dañ ko war a morcelé ngeen daggal seen bopp lu leen neex. yéen a jël ñaari doomu jàmbur booba tey xamuñu dañoo dee kenn xamul na la ñu mujjee ba kenn ñàkk ca ba kennam yéen a jël Ousmane Sonko Bassirou Diomaye mii tëj ci kaso bi yéen a jël si même jour dissoudre li nga xam ne moo di parti politique yéen a fekk Walf boo xam ne booba tey taxawaay ba nga xam ne fa la nekkoon benn soi-disant Moussa Bocar Thiam ñëw tëj ko yéen jàpp nit fii di Pape Abdoulaye Touré duur ko ba mu damm yéen a def tey li ñu naan haute trahison jël ay élection si réew mi di Sénégal kenn mësu koo puus ngeen puus ko yéen a tey jël police wala gendarmerie dugal fa ay nervi tey yéen a sàcc xaalis bi yéen a bëgg toog bëgg a bëgg woote seen bopp opposition amuñ waruñoo wax waruñoo opposé wu au delà si wàllum opposition man buñ ma man buñ ma dégguloon dëgg euh, Macky Sall dañ koy jàpp ji jëli ji andi Macky dañ ko war a toppee au trahison lu jëm ca benn Bokk Yaakaar ba ca APR man bu ñu ma toppoon dëgg dañ koy dissoudre ndax nii parti politique doxee ndax ñoom doxee nañ ko bi ñu yoree nguur. mais tey da ngay bàyyi ñoo xam ne yor nañ ay milliards xam nga bu ñu yoree milliards lan la ñuy def. Mhm. dañu mën a di déstabiliser réew mi niñ koy déstabiliser mooy dem wuti ci seeni chroniqueur fii bëri na si ñoo xam ne dañu woowee seen bopp influenceur tiktokeur wala di wax ah, bu ñu waxee dañ leen jox xaalis moo tax ñu wax mais tey koppar bi nga xam ne noonu yor nañ ko si la ñu jéem a semer tey si doute si xel xelu xale moo tax. dama koy wax waxaat ko hmm. peut être doo ñu jàpp nit nga ne lu tax ñu jàpp ko mais trop c' est trop jingal li ñu bawoon nag si nguuru Macky Sall waratul am. Hmm. mooy benn Adama Fall di wax lu ko neex te mu jël fenn benn Ahmed Suzanne Camara di wax lu ko neex te mu jël fenn benn ba jaxate bi nga xam ne tey moom moom la ñu woo si dig di toog di waxal ne kii boroomi ñaari tur la ne diw kii kat dafa tëddeeg benn xale. dañuy dese ni foofu daaw de jigaal mhm. fa la ñuy jaare ni sax dugg si. Euh,